I'm from Vietnam. I like Admon TV. Senegal we win. Asmoon TV, révificateur des valeurs waaw di am mbégte rek euh, ak contentement di ñëwaat ak yeen ci émission on refait le match on refait le match mom chaque jour rek moy pour Sénégal jouer ci lendemain bi ñu def ñu defaat match bi tay nak euh, ma ngi fi ci kër l'ancien international Salif Diagne muy ancien joueur des Niayes de Pikine waaw muy nit ku baax nit ko xamné tay tey ni mëna wax ni bokku na ci sénégalais yi njëkk jël Coupe d'Afrique des clubs champions fele ci Maroc ci équipe bi naan Raja. Casablanca ñu am ci mbégte nag tey di def ak moom sunu on refait le match muy match boo xam ne démb Sénégal jël Coupe d'Afrique muy loo xam ne tey jii ni mun nañ wax ni bettu ñu parce que gis nañ sunu équipe nationale Sénégal ban xar kanam la doon wan ci tournoi bi Salif Diagne maa ngi lay nuyu di la ziar. asalaamualeykum as maa lay ziare bu baax a baax di la delloo nuyoo di nuyu sportif yëpp sénégalais yëpp di nuyu aussi sumay xarit yu nga xamante ne ñu ngi bokk benn amical

waaw jërëjëf euh, <laughs> grand Salif Diam l'international parce que saa yi ma ko gisee rek daf may fàttali lu bëri ndax bi muy fubal mën naa wax ni ramasseur laa woon te gis naa li mu doon def ci biir terrain bi nit koo xam ne la tey jii nii bi mu doon fubal tey jii nii moom la fubal bi laaj parce que ci terrain du ci sonn du ci tàyyi muy nit ku baax nit koo xam ne tey jii nii royukaay la ci ñun di wax rek Salif gis nga démb nag euh, li suñu borom defar mooy suñu victoire bi nga xam ni mu nañ wax ni am nañ ko gis nañ tamit suñu équipe nationale Sénégal joué match boo xam ne mun nañ wax ni Sénégal yëpp a

ñu continuer gérer def gérance boobu ñu doon def ba yàlla yóbbu ñu si série tir au but yàlla def jox ñu ndam li comme ça loolu du ma def lu ci sant leen si gërëm leen si di féliciter les joueurs di féliciter encadrement bi di féliciter surtout notre cher ami muy l'entraîneur donc kooku ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax ne alors que vraiment taxawaay bi ñu taxaw démb dañ ko def taxawaay boo xam ni pour c'est pour tout le Sénégal voilà dëgg la dëgg la la Salif taxaway bo xamne c'est pour tout le Sénégal parce que mën nañ wax ni Sénégal bëgg nañ dem ci match bi nga xamne mom la équipe nationale Sénégal def dem muy ndam lo xamne tay tey mën nañ wax ni tamit euh, comme ni ñu koy waxee rek ndam lu buñu soxla won la tamit entraîneur bi comme ni ñu ko waxee rek notre ami et petit frère euh, pap chaw pap buna chaw mu def nak résultat bo xamne machallah ndax gis nañ tey jii ni xar-xaru kanam gi équipe nationale Sénégal di taxawee ci terrain gis nañ ko début euh, tournoi bi gis nañ ni équipe nationale di jouer di progressé de mars en mars kon nag loolu liggéey la mën nañ wax ni loxoom ak liggéeyam feeñ na ci ci ci match ci équipe nationale Sénégal tey ji ni Salif boo mu doon wax démb matchu Sénégal bi gis nga tey jii nii état d'esprit bi équipe nationale Sénégal don jouer te gis nañ ni yow jouer nga ci naar yi mën nañ wax ni xam nga euh, côté boobu xam nga ko parce que yaa ngi woon Maroc te ñàkkul yaa ngi doon jouer ay Coupe d'Afrique tamit des clubs champions jouer nga nekk nga tamit ci équipe nationale Coupe d'Afrique tey jii nii boo doon wax démb lan moo la marqué ci bi euh, tournoi bi yëpp ci maanaam euh, quatre matchs yi mën naa wax ni cinq matchs yi nga xam ni moom la Sénégal joué. bon pratiquement cinq matchs yi Sénégal joué li ma ci ràññee moom mooy sànq wax naa la ko. Mm-hmm. ci antenne. Mm-hmm. pour wax la ne la contre Madagascar. ci lañ indi lu nga xamanteni lolu mom moy gagné fep partout fep fo dem ci monde bi ñuy fubal lolu soko amé da ngay gagné gagné wul tamit kenn du la gagné wala suñ la gagné faxastal lu say say àndandoo say fans buñ duñ la meree booy dañ am engagement bu nga xamanteni dañ ko jël def ko en équipe parce que du kenn rek mom moy am engagement c'est toute l'équipe un match de football c'est une équipe équipe bi su fekkee ne nag équipe baa ngi dox ku nekk di joxe li nga war a joxe kooku waxuma la sax waxuma la sax leneen mais pour ñu gagner le problème la. donc man foofu laa amee confiance bi ñuy wax des si commentaire di waxtaan ci final bi et tout ça après mhm. laa ne ah man de aw ma lu may tiit parce que booy li bu ñu defee li ñu defoon keroog mhm. contre Madagascar mais Algérie mënu mënu mënu suñu dara mhm. donc effectivement la preuve noonu la mujjee. voilà dëgg la dëgg la comme ni nga ko waxee rek suñu match contre Madagascar marqué na ko parce que gis na xale yi euh, prestation boobu ñu def boobu moom may na ko moom mu xalaat ni Sénégal war na mën a jël coupe bi te ñëpp noonu lañ ko xalaatee woon léegi dañuy ñëw rek parce que gis nañ Pape Thiaw comme ni nga wax def na résultat gis nañ tamit euh, euh, maanaam comme ni ma koy waxee chaque jour rek ci équipe nationale bi muy def qualification tey jii nii am na jour yi nga xam ne tamit ñi ngi doon jouer ci qualification bi ba qualifié loo équipe bi après ñooñu joué wuñu compétition bi nga xam ni kon Pape Thiaw def na liggéey bu rëy parce que fexe na ba indiwaat yeneen joueurs yoo xam ne bi ñuy def qualification bi jëlu leen woon mais nekk na ci championnat bi muy national bi muy D2 bi bàyyiwul benn match championnat pour mën a tabaxaat équipe bi nga xam ne tey jii nii moom moo jël coupe bi kon mën nañu wax ni gàcce ngalaama Pape Thiaw. oui Pape Pape moom gàcce ngalaama lañ ko war a wax parce que vraiment man j'ai eu l'occasion di seetaanandoo moom match à Pikine chaque fois muy wër terrain yëpp stade yëpp mu koy wër di détecter ay boy yu nga xamante ni war na leen mën a jël dugal leen ci équipe boobu donc nag ñu mu jël ñëpp ñoo baax moom moo tax am na ñu nga xamante ñoom ñoo commencé woon mais terminé wuñ ko c'est parce que dañu ñeneen ñu nga xamante ne si lañ gën am si ñoom yaakaar te ñooñu aussi bi ñu ñëwee ànd nañu ñu ak ñi nga xamante ne ñoo démarré woon nekk même groupe jàppalante ba tey yàlla jox ñu ndaw ndam li kon donc moom duma def lu dul féliciter ko encore une fois parce que liggéey bi mu doon liggéey feeñ na. dëgg waaw liggéey bi mu doon liggéey feeñ kon nak loolu mom dañ koy sant yalla rek wax ni rek comme ni may wax chaque jour rek euh, la relève est assurée muy ci côté entraîneur muy côté jour kon tey jii nii. damay rax damay wax rek ni appel bi may def rek moy ñu gëna yok rek suñu organisation parce que organisation bi rek bu gënee yaatu rek nit ñi nga xamni ne tey ño ñoo ñoo war affaire yi ñu jox ñu jox leen ko tamit ñu yor ko rek gëm nañ ni suñu football bi dina gëna dem ci kanam légui dañuy ñëw. ci euh, maanaam début bi parce que mun mënuñu bañ a waxtaan ci loolu mooy ci sunu championnat local bi parce que tey jii nii dañ ne Coupe d'Afrique CHAN CHAN bi moom mooy champion mooy joueurs yi nga xam ni ñooy jouer ci seen seen dëkk tey jii nii kon mën nañ wax ni sunu championnat am na niveau tey jii nag foofu nag faw ñu waxtaan ci tuuti pardon faw ñu waxtaan ci tuuti ndax li tax ma ni faw ñu waxtaan ci tuuti parce que gis nañ sunu ay joueurs yoo xam ne ñu ngi ci championnat local bi tournant yi ñuy dem dañuy dem après ci sous région bi dëkk yi nga xam ne ñoo ñu wër ñoom ñoo leen di jënd te tey jii nii suñu équipe nationale yi def nañ preuve ñi ngi jël coupe d' afrique bis sukkër jël na coupe d' afrique bi gis nga tamit jëlaat nañ ko coupe d' afrique bi passé ñun ñoo ko jël mais suñu club yi jëlaguñu coupe d' te pour ñu jël coupe d' afrique foofu ñu am ay joueurs yu baax te ñun suñu joueurs yu baax yi ñuy wax bu ñu toogee après da xool bu ñu joué benn benn compétition rek suñu sous région bi jënd leen kon ban politique lañ mun a mën a def pour mën a téye suñu joueurs yooyu te xam nañ ni war nga am expérience ci loolu parce que joué nga final coupe d'Afrique dugal sax bi buy gagné loo sa équipe euh, club muy Raja de Casablanca jël coupe d'Afrique tey jii nii boo doon wax ak ban appel ak lan nga yaakaar ni suñ ko defee dinañ mën a téye suñu ay joueurs fii ci Sénégal. waaw mooy li ma démarré woon sànq rek. Mhm. problème mu sponsor. parce que boo gisee les les naar la. Mhm. di am xamante ni. équipe yu baax lañu fay yore ñooñu dañu am ay sponsors yu ànd ak ñoom di leen accompagner di leen jàppale ba ñu am audace am ay moyens pour mën dem seeti Jean wala pol boo xam ne mi ngi dëkk Burkina Faso ku mën a fubal la wala mu ngi dëkk Sénégal ku mën a fubal la ainsi de ñu jël ko greffé yokk seen équipe ci la ñu am ba tax na étranger yooyu ñuy am aussi dañuy am njariñ ci club yooyu ñun damay jox un exemple Jeanne d'Arc mos na ko def une fois ak le regretté euh, Omar Seck ñu dem jëli ay Aba Mali jëli ay wa waa euh, lay Burkinabé la et ainsi de suite mais fan lañu ñu yóbbu nañu bañu ñu sori ba final ñeneen yeneen yeneen pays loolu lañuy def naar yi loolu la def soudanais yi léegi noonu la def ñeneen ñi loolu la def as mais sponsor yi nañu ñuy ñëw jàppale club yi suñu jàppalee club yi ñu am moyen am doole mhm. mais suñuy club dañuy dem ay final dañuy gagné coupe comme ni ñuy gagné coupe d' Afrique des nations bii passé mhm. ak CHAN bii nii mhm. mais dañuy gagné waat leneen ak leneen mais nañu nañu gëm loolu gars yi jàppale ñu sponsors yi jàppale ñu parce que par exemple man comme bi ma nekkee au Raja de Casablanca c' est port bu nga xamante ni port portu Maroc moom woon su sponsor xam nga ni kooku kooku am na ay moyens club bi am na ay moyens fu ko fu ko neexalee dem jëlee jour ñooñu nag suñ ko defee te ñu sax dañu am exemple bi Omar Seck def na ko fi le regretté Omar Seck waaw donc kon lu xaar ci loolu yàlla nañu nañu gars yi jàppale rek sponsor yi ñëw ñu mën a am doole club am doole vraiment xam ne ku ñu dem seet sous région bi fii mu ñëw jàpp jàppale ñu ñu fubal après déma dem si kanam pour am ay résultat dëgg la gaaw jëm ñu jàppale ñu jëm ci kanam parce que lii moom wax dëgg yàlla comme ni mu ko waxee rek ndax lu mu ñu ci wax rek njëriñ la ci ñun waaw kon nag dañuy def appel une fois parce que tey jii nii comme li ñu wax ci sponsor yi tey bu dee rek sponsor war ngeen mën a ñëw ndax tey jii nii bu dee ay joueurs bu dee ay dirigeants bu dee ay président club def nañ li leen war ndax téye nañ suñu championnat def nañ li war ci seen ay joueurs ba tey jii nii ñu dem def jël coupe d'Afrique CHAN kon nag yéen a ci des les sponsors parce que liggéey nañ liggéey boo xam ne yéen war ngeen mën a ñëw kon nag bal bi seen camp la nekk. yen sponsor yi di defat appel rek au gouvernement rek ñu jàppale euh, gëna a jàppale club yi rek wax ni rek euh, il est temps pour rek suñu club yi tamit dem sori sur le plan africain wa di ñëw rek ñi ci dernière euh, minute rek ci ci émission bi rek di wax ni rek tay jii nii ban appel rek ngay def tey di ko def ci AIFS diko def rek ci le monde football. bon as vous me permettez. Mm-hmm. avant may dem ci AIFS. mo mm-hmm. wax ci amical bi may jité fi à Pikine mm-hmm. les anciens. footballeur sportif de Pikine ñooñu maa leen di sant di leen gërëm di leen ziare parce que confiance bi ñu am ba teg ma si boppu association boobu xam naa ne sax am na ñoo xam ne ñoo ma gën a présidentiable foofu ci amee ci amee amical bi mais comme man lañ fa teg donc maa leen di remercier encore une fois di leen wax ne li ñu sumb yàlla nañ ci yàlla jàppale ba nga xamante ne ñun aussi suñ koy legee ñu jox ko suñuy doom ci loxo yu nga xamante ne loxo yu normal la concernant AIFS comme lu may faral di wax rek xam nga man si panel bi sax rarement lay dugg mais parce que man dama bëgg lepp lu may wax rek ma tek ko ci yoon di ñaanal gaay yëpp di wax ne alors que nañu liggéey ñu liggéey suñu liggéey mën nañ si am ndam dañu lu ñun tollu nañ fu nga xamanteni ñun jitu rew mi wala responsable yi nek ci dekk bi fi mhm. war nañ ñu mën parce que ñun suñu carrière yëpp dañ ko football mhm. suñu carrière dañ ko football amna sax ñu nga xamanteni ñi dañuy dem jàngi dem dem def leneen mhm. ñeneen ñu continuer ci football bi donc war nañ ñu gessu xamni aussi nous avons des familles xamni war nañu jappalé suñu famille am nañ fi aussi ay am di jamm yu nga xamante dañuy am suñu yaakaar parce que suñu tour rek lañuy dégg wala ñu gis ñu romb xëy na sol benn tëwéy boo xam ni rafet na mhm. ñu yaakaare ñu àdduna ak suñu si biir fekk mhm. demewul noonu donc ñuy lancé appel bu nga xamante ni mhm. suñu président Cheikh mu yokk lu muy def rek parce que moom lu muy def nii lu rëy rëy la parce que depuis depuis boobu ba léegi moo fi nekk di ko gérer donc kooku suñ ko jàppalee kuñ ko jàppalee man xam naa ni si kanam a kanam lañ jël dëgg la donc mm-hmm. encore une fois mm-hmm. may ziarewaat AIFS yëpp mm-hmm. di ziare ñëpp di remercier aussi di gërëm aussi la fédération sénégalaise de football parce que ñoom aussi boobu ba léegi ñu ngi liggéey te liggéey boobu moo waral résultat yi ku liggéeyul doo am résultat waaw lu leer nga wax lu leer nga wax euh, l'international Salif Diagne ku liggéeyul rek doo fayee ko kon nak euh, alhamdulilah lañuy wax rek di jaajëfal euh, sunu président tamit de la fédération muy maître Augustin Senghor gis nañ liguey bi nak liguey bi rafetna comme ni nga ko waxee rek tamit ci AIFS ci le président Cheikh Ahmed Tidiane Seck di wax ni rek euh, gatcha ngalama wa dañ lay gëna ñaax rek xamni rek comme ni mu ko waxee rek waaw lolu ay manam mën nañ wax ni sak la ndax dañoo am tour boo xam ne te liggéey ko fii ci Sénégal tey jii nii fépp fu ñu nekk ci su quartier bu ñu nekk rek am na bët bu ñuy xoolee kon dañuy ñaan rek affaire bi gën a avancé gën a ubbeeku parce que am na ay porte yu bëri yoo xam ne war na mën a ubbeeku ndax sunu dayoo may nañu ko. di wax ni nag tamit comme ni ngay waxee noonu ci dinaa ñëwaat tuuti ci ci fédération bi parce que gis nañ les anciens internationaux cër bi ñu leen jox ci football Sénégal parce que boo gisee tey jii nii parmi les équipes nationales ay entraîneurs yëpp ay anciens internationaux lañ gis nañ tey jii nga xam tay fa la moy CHAN bi entraîneur bi ancien international la ancien euh, international bi tamit euh, goalkeeper moy coach goal bi mom moy Khadim fay waaw mom moo fa nekk ancien waaw waaw bu jaraaf waaw mom moo fa nekk bëri na nak ñu bari ñu ci nek bo xolé tamit ci bisu sukër bi euh, Seybaane Mamadou Diallo moo fa nekk jël na waaw ngi ni momit jël na coupe d'Afrique feulé bo fa démé tamit ci U20 yi malik daf moo fa kon parmi bari na Yo, xamné internationaux, les anciens internationaux ñi ngi ci biir kon les ñuy jox cër bi ñu ba dañuy rencontrer tamit le président de la république parce que yu bari association bi tamit war nañ ko def ñi ngi ci yoon bi loolu mais ñi ngi ñaaxaat le président Ahmed Tidiane rek mu wax dëgg yàlla affaire bi war na gën a mën a gaaw war na gën a mën a romb fii nga xam ni fa lañ toll parce que ñu ngi koy gis ci yu bëri ci yenn association te ñun wax dëgg yàlla def nañ loo xam ne ci Sénégal mënul fay kon nag loolu mbégte la rek mu nekkoon benn parenthèse boo xam ne mënuñu ko ci bon bañ a wax di ci am rek contentement ak mbégte rek di dem doon def nag euh, émission on refait la match comme ni koy defee chaque jour rek tey nag ma jógee fële rek ñëw fii seet si sama grand bi fii ci ci géej waaw ci ci ci Pikine fii ci wat euh, mooy ci croisement Cheikh Béthio ñëw rek gis ko pour mu rek euh, def euh, on refait le match mais balaa may tëj rek xam naa du ñaax am na benn kàddu bu mu war a wax. waa donc damay ñëw parce que mënuñu def émission. Mhm. ba tëj ko. Mhm. te waxuma si les ñaay de Pikine. Mhm. lépp lu mu am. ci football ci sport bi. c'est grâce aux Niayes de Pikine. parce que man ñooñu ñoo ma formation bu jaar yoon. bu nga xamante ni ba may démarrer di football junior première année la woon mais dañ muy indi su ma surclassé équipe première ba nga xamante ni première année boobu ma ñëw jeune ñaay maa ngi joué benn match coupe du Sénégal match junior la. Mhm. contre Gorée l'US Gorée temps boobu Alain moo doon président Gorée. donc loolu yàgg na donc donc mënuñu def émission. Mhm. man ñu. xajal ma ci émission bi. Mhm. invité ma si. Mhm. ma war ko ma ma ci waxtan ak Asma moom. Mhm. te duma wax les Niayes de Pikine. ma len di sante encore une fois. di len gërem parce que la preuve bi ma ba sama carrière jeex sax man fi la fi la dëkk Géejawaay. Géejawaay la yéwo depuis 1978 la yéwo bu même bu may fogal ñaay maa ngi yéwo fi mais buñu démé ñom ba jël ma def ma sen président association. duma am encore lu sante len gërem len di len ñaanal ci lii ñu nekk. yàlla nañ ci yàlla defal ndam defal ñu si jàmm ak salaam. incha allah waaw loolu moom du ñàkk parce que émission boobu dina ñëw parce que mi ngi ci enregistrement sama CV dina gën leer ci Niaye de kin

ci mois de février kon nag février sunu mois la kon coupe du monde bi di ñëw ak coupe d'Afrique wala fële ci Côte d'Ivoire nañ ko def au mois de juillet euh, au mois de février rek ñu jëlaat ko rek quoi jërëjëf Modou Habib. Nice